Euh, su ko defee euh, docteur Malick niñ ko waxee euh, Serigne Souhaïbou bu mooy koo xam ni téereem bi kuy yëngu ci médecine moderne da nga ciy gis sa bopp waaye kuy yëngu tam ci médecine traditionnelle it da nga ciy gis sa bopp te yow it bind nga téere boo xam ni man mi am naa ko waaye nga nekk ràññeeku lool ci wàllu pajum cosaan Euh, boo ñu doon indil ndax bu ñu waxee docteur Malick Guèye du ñàkk kon liir na sëñ Souhaïbou am na lu mu xam ci moom maanaam boo ñu doon indil détail ñu lu mel ni sëñ bu ci li mu wax ci wàllu nen ak soow ak banaana wala jaxase koog yu ni mel inconvénient yi mën a indi ci wér-gi-yaram ak yu mel noonu li ci sëriñ bi indi ci lu baree bari lan nga ñu ciy indil ci diggante sëñ Souhaïbou ak wàllu pajum cosaan. li docteur Anis wax rek. day docteur boo xamante ni moom bu taxaw bu sotti la ndax téereem bi bala nga ko gën a comprendre rek il faut nga gëstu tuuti ci paj ndax da gis ci ay waxam sax teggin ya mooy tax du ci mën a xuus waaye dangay xam ne lii mi ngi mi ngi mi ngi wax nit ñi ngeen bàyyi xel nàngam bàyyi xel nàngam googu nag boo ko déggee rek te gësuwoo ko doo xam lu mu jubloo wax ndax dangay gis sax ci siddiyam mun a ëpp naa dagg te doyoo ko dara daa def point il faut nga xam lan mooy njariñu siddéem soow a xam fa muy waxee kon sëñ soñ bu ak dundam bu doon xam naa ne kuy ut métier loolu lay tànn nga gis na tamit maanaam loolu nga tudd sànq muy diggante nee nag soow jën boo demee ca téere mi da dangay dégg mu ne la kenn du ko boole ci seen saa di ko lekkandoo lu tax mooy li ñuy wax ndoxum sisi ndoxum siti kuy jëfandikoo nen jën bu ñuul soow di ko lekk ci benn waxtu doo jóg ci ndoxu siti ndax day day day indi jafe-jafe day diisal deret te it bu fekkee ne kuy xelu nga da ngay xam ne ñoom ñett ànduñu ci seen saa nga di ko lekk waaye nag des koy lekk ñett yooyu bu ci nekk des koy jëfandikoo waaye bu ci nekk nag boo ko bëggee jëfandikoo da nga koy may waxtu waaye bañ a boolendoo lépp rek jëfandikoo ko ci seen saa kon gis nga ne kii kii nga xamante mooy wax liir na bu baax laaj na bu baax ba xam ne ñett yooyu composant yu danger la ci doomu aadama di ko jëfandikoo ci benn waxtu loolu defe naa ne docteur mi dina ci ànd ak ndax day ñaari éléments yoo xamante bi képp koo xam ne bëgg bëgg ngaa wér da ko moytu ko di ko lekk ci benn waxtu ndax boo xoolee jën bu ñuul day yokk ndoxu siti science dem na ba d'accord ñu ci soow piir na ko noonu kazalika hmm? nga ñëw ci nen fii jamono toll sax gis nga nen yii ñu jaay daanaka waaw daanaka rek ñemoo wax baaxut waaye la xam doy na ndax nen boo xamante ni bii yow xamoo kañ lay primé xamoo ko dan lay jaay rek nga toj yenn saa yi nga toj mu jaune yenn saa nga toj mu ñuul yenn saa nga toj mu am nget kon bokk na ci sax boo koy jël te xamuloo nen bi primé na wala primé wut mënal jël mën ngaa jël kaasu ndox kaasu verre. boo jëlee nen bi tëmbal ko ci case vert bi da gis mu diig wala mu mu nekk ci digg bi wala mu tag ñett yooyu bu ci nekk na am na slification bu dee nen bi dafa tag ci kaw aggu ci digg bi aggu ci suuf mooy baaxut bu ko toj bu dee nen bi dafa nekk ci digg bi mu ngi ci diggante baax ak bon bu dee nen bi dafa dem ba laal ca taat wa nag mooy baax na kon dañoo toll ci jamono yoo xamante bi faaw ñuy def comme ni suñu sooy daan def laaj ndax laaj dina tax am ay waaw xam-xam ci dara te nit wér rek moo ko moo moo moo moo gën ci moom nit wéradi dafa métti ci moom kon nag téere boobu yaatu na waaye loolu rek doy na misaal ci ndeke ñetti programme yooyu kenn du ko jëfandikoo ci benn waxtu yaakaar naa ne kon waaw bisimilah. macha allah macha allah docteur Malick ci leeral yu am solo yooyu nga xam ni indi nga ko euh, bëggoon nañ tam comme noonu nga ko waxee maanaam ni nga waxee ni soow waaw bisimilah ñu teewlu sëriñ Abdou Samad mu indi ñu lenn ci téere sëriñ Souhaïbou bi ci wàllug maanaam pàcc wàlluk wér-gi-yaram. docteur yu ba di dañ ciy joxe seen xalaat ñoom ñëpp ba xam. ñoom ñaari ñëpp bu kenn daanu nag bu kenn andi andi ak daanu ba tax nga nga nga ne rek lii nangam dama bëgg ku ci ne xool lam ca xalaat ci mbindum Sëñ Souhaïbou bu ci amee xalaat mu wax ko ne Sëñ Souhaïbou bu li mu wax man gisuma ko ci médecine médecine moderne xëy na feneen la ko jële kenn man de jàpp naa ne fii la ko jële ñu àndoon ñëpp xool boo xam nañu koy gisee ah, man wóor na ma ne at-tibbu nabawi jii ma bind ci seen groupe bi wóor na ma ne moom li muy xool lépp foofu la koy xoolee donte da nga gis luy nuru lu wala ne la foofu la ko gis ndax dafa nangoon a liir te li ci ëpp da koy da koy teg ci sunna bokk na ci maktab ba fa newoon téere yu mel noonu yoo xam ne yëpp dañ koy ci wàllu faj mu dëppoog pajinu yi bi sallallahu alayhi wa sallam nit dana ko dégg nag ki xamul defe ne daa wala fe rek nii te fekk na fa mu ko teg ci sunna la ma bëgg andi benn bunt boo xam ne nit ñi dañ ko jariñoo waaye ngeen jàngat ko waaw ah, loolu waral jataay bi boo demee ci cent dix-huit ci téere bi dafa wax ne bokk na ci ci li sabab gudd fan ak wérug yaram di ko ñaan yàlla saasu ne boole ci itam di sàmm sa wérug yaram ngir sàmm sa wérug yaram ci gëm yàlla la bokk am na ca docteur yu jëkk yi ku ci dénk doomam ne ko bu ko defee du wopp lu dul woppi ndee loola nag moo di lii da ko ne bul lekk mukk te la nga lekkoon reesul docteur Anis Notel boobu moom d'accord nga <laughs> bul dox ba sonn bul dox ba sonn ñu koy romb nii mën na leen a buñ ko jàngatut mën na ñoo defe ne waruñoo sport ba sonn déedéet sonn bu ëpp la wax dox trois kilomètres ba ñaq ba sonn ba yëg na sonn nga nga dem dallu loolu mënta ñàkk ci nit waaye am na xeetu lu mel ne ku waroon dox trois kilomètres mu bàyyi ko dem dox di kilomètres nga xam ne da topp li nga man ba def li nga mënut ba sonn ba làccal loolu mu baaxut ci nit di ko faral def bul dox ba sonn sonn sonn da ko baamut waaye baatub sonn ji fi ne bu amoon bu bu am bu doon ko amuk jot ay yoon yoonu yoon la koy wax ngir nit ki xam ne sonn dëgg dëgg dëgg la suñu son bu jub la kon bu kenn defe ne dalaa yelloo wala mun la bul sport wala bul yëngal sa yaram de nit di dox ba sonn waaye sonn gi muy wax nag mooy sonn lool lool lool bu doo dikkee doo man dara danga nga fan di faju dox boobu baaxut ci nit boo bëggee gudd fan kon lu jaadu la wax xëyrul umar yow satuwa bul denc jigéen ci màggat loolu nag yéen a koy commentaire bul baril jaxasoog jigéen di sëy lu bari te booy jaxasoo ak jigéen yi itam bul xiif bu mu ëpp bul regg bu mu ëpp na digg doomu bul naan ndox mu sedd ci gannaaw jaxasoo boo séyee ba nag daan naan ndox mu sedd bokku ci lii tax a gudd fan xaaji nga yeew di naan mu sedd moom nee na baaxu ci nit ayub si na nga nàndalu lay dóor saa soo yéegée ne ba ngaa doxi aajo mooy dem wanagu mag wala sanguwaay na nga dem doxi ko te bañ koo tàyyi boo ko jéem a téye ngir téye ko dana sabab jàngoro yu bari bu lekk caatum meññet allah ji noteel foofu ba noppee leeral ko wax ko ni caatum meññet bu lekk seel yu wow wépp ñam woo xam ne mëni su ko sàq mi ba mu mokk bu ko wan na bul boole soow ak nen ak jën yooyu ñett lenn loo ci lekk bala ngaa lekkaat la ca des na nga nekk ba mu rees dégg boobu bul boole soow ak nen ak jën yooyu ñett lenn loo ci lekk bala ngaa lekkaat la ca des na nga nekk ba mu rees bala ngaa lekk na nga nekk ba xiif lool te bala ngaa suur na nga suur gu yam la ñu wax nag waaye waxuñ suur këll suur këll baaxut waaye suur nag nag ba mos dara ba xaw a dëgër baax na ci waaye la mu bëgg a wax mooy nga ngay lekk lekk lekk ba xamatoo foo jëm dooru jóg <laughs> loolu lay tere ne baaxut ci lekk gu jaadu nee boo añee ba noppi na nga nelaw lu mu néew néew boo reeree ba noppi na nga dox donte ñeent fukki jéego la waaye bul reer rek lak dal tëdd fi saasa jógoo booy nelaw ci ab reggaay na nga tëddee sa wetu càmmooy wala nga jaaxaan loolu dana tax ñambo gaaw rees dana tax ñambo gaaw a rees bala ngaa tëdd guddi na nga gaaral sa bopp ba xam bëgg ngaa dem ca wanag wala déet bul yàggal sab jataay ci wanag ngir dana waral jàngoroy kajoor loolu mooy imurit lépp loo dégg ñu ne def ko dana tax a gudd fan te def ga du bidaa nanga ko def lépp lu ñu la ne bàyyi ko dana tax a gudd fan te bàyyi ga du bidaa na ko bàyyi li gën a bor ci wérum yaram nag moo de saxal naan am ñoll sax ci naan sànq rek waxtu bu ne ak baril jaax soog jigéen di sëy lu bari ak lekk reesul nga lekka teg ca moo tax ku ko man bis bu ne nga di ca lekk benn yoon moo gën naan guddi itam bon na lool ak di ngelaw di lawal wala boo sangoo ba noppi te fendeegoo bisimilah ma bàyyi loolu ngeen. macha allah sëriñ bi ci <laughs> lii mënul woon a ñàkk ci jataay bi ñu déglu ko loolu sëriñ bi gaaral eh, su ko defee suñu ñaari kilifa yi indi ci ay jàngat eh, eh, waaye ñu leen di fàttali ni jataay bi ñu ngi fekk ay kilifa muy sëriñ Sohaybou Mbacké sëñ Abo. moom sëriñ Cheikh Say mu ngi nii toog ci jataay bi di ko wéttali eh, di koo xam ne mën naa ni sax moo mooy mooy idaara jataay bi eh, fi ñuy jaar yëpp moo ñu ko wax waaye itam sëriñ Maxtaar Jenn eh, moom it ñu ngi koy seen mi ngi nii toog bu Hizbut Tarqiyyah Daarul Quddus ñu ngi koy présenté mbooloo mi su ko defee Eh, sëñ eh, Malick ci moom lañ nekkoon bala ñoo ñëw ci sëñ Anis ci par rapport ak li sëñ bi gaaral yan jàngat nga ci indi comme ni ko sëñ bi posé yooyu mu fi jot lim defe naa dégg ngeen ko du jar ñu ci jaaraat muy jël temps bi waaye tudd na ci yu am solo muy lekk ci te eh, fekk yaa ngi suur këll ak yu ni mel noonu ak dox ba sonn nag jaxasoo maanaam denc ak màgget ku la mag lool. ak jaxasoo ci ci jamono yoo xam ni danga xiif ak yu ni mel yéen jàngat nga ci indi bala ñuy jox docteur Anis bismillah barakallahu mu mel ne sëñ bi euh, indi na point yu xaw a sakkan te am solo ndax euh, euh, wa nahnu xawmun laa nakulu an atanu ju'a yonent moo ñu jàngale ne moom de aw xel la waxoon ni balaa lekk day xiif te bu lekkee bay waaju su day bàyyi loolu nag eh, am na ñoo xamante bi boo boo leen doon wax loolu dañuy def na yow li ngay wax daal du waxi nit waaye kekk eh, dëkkee kekk moom wéra di moom moo ci ëpp eh, biir bu dëkkee kekk ah, ah waaw buur boo joxoon ay cadeau cadeau yooyee sax soxna Maariyatul Qibti yi ca la bokk mooy waajur Sayyiduna Ibrahim doomi islam si waaye cadeau yooyee nag la ñuy bari bari am na ca bopp da ko delloo mooy dèjà boole woon ak docteur mu ne ndax nag nit lañ woo xam nit lañ ñoo xam ne duñ lekk te xiifuñ mm. te bu ñuy lekk ba lu ñëw suur dañuy bàyyi moo tax soxlawuñ docteur barakallahu ok wax ji wax ji leer kon loolu rek ab ab tënk la ci nit xam ne euh, sunu borom bi mu sàkkee doomu aadama daf ko jox xel xel moomu nag mooy tax nit ki mën a gudd fan waaye ci ñàkk xel mooy tax nit ki gàttu fan ndax dégg nga mu ne bul jaxasoo jaxasoo bu bari science dem na ba. li ñuy wooyee prostate tuumaal nañ ne sëy bu bari dina ko joxe waaye ñàkk sëy dina ko joxe kon gis nga li ci nekk dafa war a équilibré kon lu ëpp rek baaxut loolu science moo ko jàngale nga ñëw ci seel yu wow sëñ bi tudd na ko ndax day tax biir fasu seel yu wow mooy ñam wu tooyut day tax seere am te seere fu mu amee rek biir am problème ndax sinuwaay dañuy wax ne feebar feebaru dee mi ngi ci biir biir bu wéree nit day wér bu bu biir wéradee nit ki wéradi moo tax olof dafay wax ne bii du magasin boo xam ne lu la neex def ci toogaat ba neex la nga ubbi génnewaat ko kon biir lépp loo ci def war nga ko settantal xoolaat ko bu baax a baax a baax nga ñëw ci ne mu ne denc xale bu denc jigéen ju màggat mooy jigéen ju ko ëppi at fuuf science moo jàngale ne ñaari deret yi ndax plus ak moyen mooy doxal lépp looy gis léegi nag bu ëppante amee trop problème da di am ki nga xamante bi yow woo na la mën na mën na laa jur ngay sëy moom loolu kenn ku ne xam ne baaxut yaakaar naa ne caatu meññet tudd na ko ci caatu meññet mooy dafay am lu mel ni màngo màngo dangay gis mango goo xam ne dana ñor ñaari yoon boo demee ci jur gi sax bu njëkkan xar bu amee doom meew mu bees moomu dañ ko daan bàyyeel mbortu ba duñ ko njëkkanti rat baa boog buñ ko rattee dañ ko daan def tekk tekk nag sangal lañ koy booleel togg ko waaye duñ jël meew mu di ko wayal di ko jëfandikoo ndax am na danger ci boo lekkee naanee soow moomu kon dañ ko daan bàyyeeg li nga xam ni moom muy ñëw muy muy muy mbote ma mu nàmp nàmp bu mat juróom-ñaari fan wala ñeenti fan xeet yooyu ñu soo koy ratt di ko jëfandikoo léegi nag caatu meññet mooy la mujj ca meññet ga di ñor di rat di ñor di rat ba mu wóona la bii mooy dernier meññam loolee du ci ñëpp la baax ndax am na toxite buy dagaase buy ñëw ci nit ki foofu la suñ son bi doon waxee kon am na caat yu meññet yoo xamante bi ku bëgg gudd fan da nga koy moytu ko waaye léegi nag jamono yàqu na ba ñu bari boo leen caatu meññet ñu ne luy caatu meññet ndax xàmme woo ko kon yooyu ay sew sew la hmm? bis topp mooy gaaral gaaral mooy dem ca wanag wa fexe ba génne ba ne muutuwaale ndax boo xoolee Ah, ah, ñu baal ma ci kàddu yi am saw poson la ci naq ndax saw kenn ku nekk xam na bu yàggee te génnu rek dana sos dara ca naq ba loolu nit lu ñàkk-ñàkk xel war naa xam loolu kon tayyel gi bu la ci indee boo ko muutuwaalee rek bu yàggee danga am gàllankoor boo xamante bi génn ko muy gën moo tax kon tayyel baaxut bis mooy naan lu sedd naan lu sedd bu ñëwee ci wàllu santé ndox mu diis day diisal deret te ndox mu diis mooy ndox mu ànd ak glace surtout nag nga jël glace di xóoyal di naan rek loolu moom jafe-jafe lay indi day yàq deret te baaxul ci wàllu santé te rawatina nag nga sëy ba noppi jël ndox mu sedd guy di ko naan loolee la muy indi du gën ndax da nga dem ba bëggaat ko da jafe. kon la ci gën mooy ndox mu équilibré ndox moo xam ni mi ngi ci eh, tàng nga xam ne jógewul fenn dafa tàng rek nga naan ko te it sëy ba noppi naan moo gën bañ sëy ba noppi te doo naan bis nga duy sa kol ba fees bëgg a jaxasoo loolu tam day indi ak wéradi kon loolu bokk na ci nga nga lépp équilibré maam tolloo hmm? kon yaakaar na question yi xam naa ne bari na waaye loolu ñu yem ci rek ba waaw. Eh, jàngat bi nga indi. am na solo lépp di ay secret yoo xam ni doomu aadama war na koo xam eh, nga indi ci yu am am solo xam naa li ma ci gën a fàttali rek mooy li nga wax ci wàllu biir mu fàttali ma li yonent bi sallallahu alayhi muy xadis saxiix bu sallallahu alayhi wax ni ma mala ab nu aadama eh, wiaan charrun min batnihi charrun min batnihi eh, ni doomu aadama feesalul ndap lu gën a bon biiram loolu waxi yonent bi saa nee na mboolem xeeti defukaay yi doomu aadama di duy ba mu fees fees del lu ci gën a bon biiram amut donc kon foofu gis nga ni mu dëppook conseil bi Serigne Soy bu joxe te mooy bañ a jël sa biir duy ko ba mu fees ndax looy feesal moo ci gën a bon te ni nga ko waxee jàngoro yëpp fa lay juddoo docteur Anis yéen ñi nga xam ne médecine moderne bi mu avancé ba tàmbalee am ay jumtukaay yoo xam ni euh, médecine traditionnelle amu ko woon ci mana a àgg ci doomu aadama fu sori di def ay. nga maani mhm. cheikh Ibrahima Mawlana Tijaan. gaa ñu baax ña nee nañ malaayika yi buñ gisee murit mooy jullit bu dëggal bu dëggal te soobu ngirum tasawuf dëgg mooy murit bi. Mhm. ndax war anna malaayika jëli tabki ala murit in kaana ako bu fekkee murit boobu dafa nekk ku bëgg lekk waxtu wu ne lekk rek ay itteem nee na malaayika yi dañuy jooy ci loolu dañuy jooy bëgg mu bëgg lekk ndax xam nañ ne. awoon na yoonu jàll waaye léegi nar na ko tardeel ba du jàll da koy gàllankoor sëñ bi ne loolu nag boo demee ci sunu sëriñ nga xam ne moom ñu baax ñoo ñëpp loolu la leen di wooye ndax yaatal gum yaatal moo tax mu ne sunu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane bind na ko ci Jawharul Maani mu ko kon loolu day dëppoog lii mu wax noonu ko sëriñ bi waxee nga xam ni kon day gën a confirmé wu muy rot na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa cheikhul xadim indi ko toxale ko ci nettali gaa yu baax yi muy eh, nettali cheikh na ahmada tijaani waaye sëriñ son bu dem indiwaat ko ci téeréem kon loolu li muy tegtale rek mooy jël biir duy ko ba mu fees nit ki koy def mel na ni mu ngi maanaam eh, xaru ndànk-ndànk kon loo am am solo la